voilà sëriñ bi euh, ginnaaw bi ñu la nuyoo euh, nga présenté tey ji euh, ci li nga xam ne rek moom moo di xew-xew bi wàccu sëriñ atu Diagne ñu jëbal ko boromam bisimilah. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah Adama Sène moom Cheikh Abdou Karim Mbacké Falilou ginnaaw bi ñu nuyoo si yàlla lañ jógee si yàlla dellu waaye nag ñun ñu ngi sant yàlla ñun taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bi nga xamee ne ñun amuñ ko du Sëriñ Tuubaa gëmuñ ko du Sëriñ Tuubaa nekk lu si mbir ndigal Sëriñ Tuubaa bon euh, lu mel nii nii dafa am solo lool taalibe yi xam ko ne liggéey Sëriñ Tuubaa euh, du réer fii sakkatuma fi ñu jëm kon Sëriñ Atou Diagne euh, ku ne bëgg na am bis mel nii te liggéeyam nag si si si si yoon Sëriñ Tuubaa yi ku ne xam na lim fi def ak lim fi jëriñ bon gis nga ko nii nii rek la mbir mi mën a demee bon ñu ngi bëgg bu baax si yéen di leen ñaanal jàmm tolluwaay bi ci kuréel gi ñuy wax Hizbut Tarqiyyah fa mu ko tàmbalee ak fi mu ko indi loñ ci mën a wax waaw waaw boo gisee Hizbut Tarqiyyah fi mu tàmbalee fu mu ko indee si jamonoy chef de l'État la am naa lu ma laaj ay mag yu kilifa yu am solo ñu wax ma si jamonoy chef de l'État la ko chef de l'État euh, dàggaloon Hizbut euh, Tarqiyyah mu am fu mu fu mu ko commencé woon mais mu fu mu ko toll fu mu ko tollal tey jii bi nga ne nag si borom dogal na fii la liggéeyam jeexee mu dem fekk yi Sëñ Tuubaa. jërëjëf sëñ bi jërëjëf waaw sant Sëriñ Tuubaa rek lañ ciy def ndax wax dëgg yàlla euh, moo nu toqee lu nekk ci moom ñun moo ko def waaye amut guddeeg bëccëg subaa ngoon loolu Sëñ Tuubaa lay wan Sëñ Tuubaa ci lay xëy ci lay ci lay gont ci lay ñànq ci lay rañaan léppam Sëñ Tuubaa la wax dëgg yàlla moom bu doon ni yàlla suñ borom bisam bi rek tey doy na firnde mooy ku liggéey Sëñ Tuubaa bis na ñëw Sëñ fay la lii tëdd nelaw du ko maye ngërëma Sëñ Tuubaa rek ko maye képp ku fi toog Sëñ am na ngërëm di commencé Sëñ Abdou Lahat Sëñ Abdou Khadr Saaliw sëñ Baara Cheikh Sidi Makhtar ba sëñ Muntaxa mi waaye ñun ñi ngi sant sëñ Tuubaa baax bi mu nu bàyyi li mu bàyyi ndax dafa xàll yoon ba mu leer mën a ñëw leen dem li ñu fas yéene mooy lu ñu doon def benn ñu def ko fukk ba feeg ñu koy fekk ci kanam Cheikh Khadim Mbacke. maa ngi tudd Abdoulaye Seye. Euh, liggéeyu Serigne Atou tey mu génn àdduna. Euh, ñu gis mbooloo mu bari gunge ko ci këram gu mujj lan nga ñu mën a wax ci jëmm ji. waaw bu ñuy ziare si Muntaxa ñaana ko mu yàgg fi loolu te wér noo ngi sant sëñ Tuubaa baax ci bis bi ndax lii ñun ndaw ñi ab soññe la ci ñun sëñ aatu dafa dafa dafa dafa màgg ci sëriñ bi ne ci sëriñ bi dafa ne ci sëriñ bi bu guddeeg bëccëg ak subaam ak i ngoom ak xëyam ñëpp ñëpp ñëpp di sëriñ bi moo tax sëñ Tuubaa faaw mu fay ko lii lii nii ak fay li gi mën a gis rek la fii ci kaw suuf waaye la nekk yow ma xëy am mooy dàq loolu nag ñu ndaw ñëpp ab soññe la ñun liggéey gi mu doon amal ngir jàjji ndaw ñi lan nga ñu ci mën a wax loolu moom man mii di wax a yow ci daal ji laa jaar waaye rëccuñu ko mel yoon nuñ mel ci lu baax rek fa la fa la fa la ko melee sëñ bii sama wetam moom ba tey ba tey mi ngi ci daara ji waaye bëgg sëñ Tuubaa gi mu lay bëggloo jar na lu nekk yàlla nag suñu borom lan moo la motivé ba nga dugg ci kuréel gi waaw ah, Hizbut-Tarqiyyah suñu waajur moo moo ci dugaloon waaye ba li ma ko wax rek maanaam rëcc rëcc mi dara ndax Hizbut-Tarqiyyah lépp sëñ Tuubaa la suñu aatu lii ah, nga wàcc liggéey xalif général kul murid ñëw yendu fa ba takkusaan mu mu mu jublu ak suñu Tuubaa loolu yaakaar naa ku mu doyut dara dara dara laa doy noo ngi sant nag yàlla baax ci tawfeex gu ñu defal bañ fekk lii ndax lii kilifa jóge na fi te amu ko suñu Tuubaa ay ab liggéeyam moom suñ tubaab obligé boo noo noo sóowu rek fa nga yem rek suñ tubaab fa fa la yem ci yow ah dafa jeexal takk dundam gépp suñ tubaab moo tax suñ rek da ko fay lii te yow ma xëyaam tey jii fa ñu fa naane la ma fekk ci tawfeex suñu Tuubaa defal dina kaw njortam ñoo ngi sant baax day gën a tawfeexee suñu Tuubaa dañaan danaan sama sama sama tey ju ne danga ci sama démb ni seen aatu dafa def ay aatu yaa yu bëree bëree bëree bëri ëllëg yi day gën a tawfeexee suñu Tuubaa liggéeyam ba fi suñu Tuubaa jógee ñëpp dañoo waxoon ne yoon fi la yem seen suwaa ñoo yëkkati ko ba fi jógee ñu ne dee suñu Fallu ñoo yëkkati ko kon boog suñu aatu jóge na fii nii waaye liggéey mi liggéey day gën a sarsare ba ba ba ba àdduna tukki. bisimilah euh, Ka Xasaayid. Euh, waaw doy na waar lool. metti na waaye am nañ mbégte ak xel mu dal ku ñëw fii tey da nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa rek moo wóor ndax moom symbole la te ba engagé ba léegi bàyyiwut dafa engagé ci sëñ tubaa dooleem alalam njabootam ba defar na ay ñoo xamante bi nii sax ci liggéey bi ci la leen defaree. asalam géeyee ñu ko waajalee ba mu fay dem di ko dëkk ak mbooy la woon rek dañ koo gor defar ko mu daggal fa ñëpp taalibe yi donga yi ñëpp ku ñëw fii ci armée li tey man de lii maa ngi koy doog gis ñëw naa fi denc bu nekk na kilifa gën a wàcc na fi waaye lii maa ngi koy doog gis. am nañ mbégte nag tey ndax dafa ñoo mbégte mooy sunu xel dafa dal sunu xel dal na lool lool dal na lool ci Atou waaye nag am nañ tiis woo xamante bi ni l'islam gépp la dal. sëriñ Salim Mbacke lam defoon juumut ndax da ko tegoon ci sëñ Muntaxa loxoom la ko tegoon nam boole woon ak Cheikh Béthio ñoom ñaar la boole woon te boo dee xool seenu mujj sëñ Muntaxa leen taxaw ñoom ñaar ñëpp kon moo tax suñu xel dal na daal ndax nga dem sëñ Tuubaa taxaw la loolu doy na sëkk am xel voilà ci xasida yi ngay yëngu taxawaay bi mu amoon ci xasida yi waaw symbole la ci woon ndax am na lu mu defoon am na initiative bu mu defoon ci koor gi njàng moo xam ci daan bég fii ci kër sëñ Tuubaa gi bokkoon na ci initiative bu mu defoon li ma gën a daane nag mooy daara xasaayit jii mu doon defar ci université bi nga xam bi ñu ko tàmbalee sax yàggut nga xam da cee wane jomm ak dooleem wax ci sëñ Muntaxa ni ko ñun ñoo ngi ci kuñ ci mën di fekk tamit ñoo ngi ci ko dem liggéey bee ak liggéey bi mu tàmbalee xam ne liggéeyam fi mu toll nii nam sore benn liggéey sore woo ko noonu waaye noo ngi koy ñaanal rek lépp fekk ko àjjana ci barke sëñ Tuubaa waaw waaw kay jërëjëf comme ni ko sëñ Cheikh waxee rek noonu lañ koy waxee euh, banqaas bu mag moo fàq tey ci yoonu murit di sëriñ Atou Diagne di koo xam ne nii liggéeyam ci yoonu murit du lu ñuy werante du ñuy nës nësal du lu ñuy nëbbu tey foo déggee rek baatub xasida jóg wala muy baatub kuréel da nga xam ne nii sëriñ Atou Diagne nit la woon koo xam ne ne soldat la bu sëñ Tuubaa nangul ab liggéeyam damay naa ne am na ñoo xam ne mësuñoo gis sëñ Atou dagg nañ seen yitte ñëw tey li tax ñu ñëw mooy bëgg gum bëggoon sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa nangul ko ak bëggam kon noo ngi ñaan yàlla bu ko cat jiitu ju bàmmeelam moo amoon ab taxawaay nag ci xasida yi ci wàllu jàng ko ak di ko jàngale ak di ko sottiwaat ak di ko saytu ak di ko taxawu ba gone yi mu mën a dugg ci ñoom damay faral di wax ne am na col yoo xam ne nii moo ko fi indi am na loo xam ne jëf joo xam ne saa boo ko déggee sa xel dem ci moom muy colu am na xale yoo xam ne foo leen gisee rek ñu sol yére teg ca maxtu sol ay marakis doo wéret da naa leen Hizbut Tarqiyyah rek ngay wax te am na yeneen kuréel yu fi jiitu woon kon moom liggéeyam suñ Tuubaa nangu na ko mu ànd ak Cheikh Mamadou Mountakha àndoon ak Serigne Salif àndoon ak Serigne Abdou Lahad ba yàlla dogal tey ji mu wujji boromam noo ngi barkeb sëñ Tuubaa ak xasida yi nga xam ne amuñ lu dul moom yàlla ba ko cat jiitu ci bàmmeelam euh, mbég nañ nag mbégte moo xam ne nii li tax ma ne mbég nañ ndax kenn du ñàkk nit sax ne danga ngaa bég waaye suñ borom day def loo xam ne nii boo ci teewee rek da xam ne luñ nangu la ak luñ du nangu waaye moom ku ñëw fii da nga xam ne suñ borom nangu nab liggéeyam sëñ Tuubaa nangu nab liggéeyam noo ñaan liggéey boobu nag yàlla nay gën a colcoli ba ca kaw ci daraje Seexul Xadiim waaw waaw sañ aatu dem na waaye am na yeneen aatu yu mu ndax doonoo sañ Saliou da wax ne defar jënn doomi aadama dong ba mu mel ni yàlla bëgg jaral na ma tabax ay daara yu bëri kon moom lim defal ci ay nit nga xam ne ni waxuma la menn sëñ atu dem na waaye bàyyi na fi atu aatu mu fi bàyyi mooy ku ci nekk jëwriñ nga foo xam ne ni fa nga nekk mu tegoon la fa képp koo xam ne yaa ngi sol euh, ab baylaat teg ca maxtu di jàng xasida rek fa nga nekk am atu nga fa nekk kon nañ gën a góorgóorlu xam ne am na lu ko sëñ Tuubaa dénkoon mu nekkoon ca di ca bay ba wane ginnaaw tey ñu gën a amaat pas-pas gën a amaat pësteef gën a xam ne ni liggéeyub sëñ Tuubaa moom ca kanam la jëm ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci euh, kanamam Euh, war ko wuutu ñoo ngi ñaan ci barkab sëñ Tuubaa ñoom it liggéey bi fa aatu bëggoon yàlla nañ ko fa yeggale ci dara jee Seexul Xadim waa rafet nañ jot ne wàcc na ndax sëñ moom lii rek ndax lii mës am ci bàqee lii mësu fi am kon lii ci la ñuy rafet njot na wàcc na wàcc na gi mooy sëñ Tuubaa bu lay liggéeyloo ba bis jot ngat sab liggéey daal di arrêté am na noo xam ne ni bu ko bu ko sa sab dem sa sa bisub denc euh, doxee rek danañ xam ne sa liggéey mat na te liggéey bu mat da ngay wàcc kon liggéey mat na la jëres yàlla na ko mottale àjjana ci dara ji Seexul Xadim jërë ngeen jëf waaw euh, sëñ euh, Atou de li ñu mën a wax ci moom mooy li ñëpp mën a wax ci moom ndaxte yaakaar naa ñi teew fii bu doon ñaar téeméeri nit téeméeri yi xamuñ ko wala ci télé lañ ko daan gis waaye li leen ñor ci jëmmam itteel leen ci jëmmam mooy sëñ Tuubaa mi mu nekkoon ci moom te Sëñ Tuubaa moomu moo ci la woon ba xëy ji wujj suñ borom dimbaliwaale na ci ñun ñi ñi teew ko teew ko gunge ko ba ci barab bii nga xam ne ku fi ñëw suñ Tuubaa tar nee na Sëñ Tuubaa la ci làmmiñam laa ko déggee kon doonut loo xam ne nii ay caaxaan la Sëñ Aatu nag doon koo xam ne nii Sëñ la la doon nekkaloon ñun dañoo judd di ko dégg di ko gis di ko gis si Sëñ Tuubaa mosuñoo xam Sëñ Aatu ci leneen lu dul Sëñ Tuubaa Sëñ nag boo nekkee ci moom li ñuy wax ku ko lebal ker ku ko lebal ker mu fay la guddi moom loolu lay defal ah, waayam waaye suñ Tuubaa nag saa bu fi jógee day feeñ suñ Tuubaa du koy wane ci saayir wane ko ci baatin kon ñun li ñuy ñaan suñ tubaa mooy Sëñ Tuubaa ràng koy médaille te taas suñu ci barkeem te dimbali ñu ba ñun tamit li ñu bëgg yéen liggéeyal suñ tubaa ci xasida ak ci lépp ñu defe ko ni ñu ko bëggee suñ xool sedd na bu baax a baax jërëjëf mbooloo mu takk li muy def ci yow mooy xam ne suñ Tuubaa rek a jara a lebal mooy rek moom rek moo jar a nekkal ndax nekkal suñ Tuubaa rek a tax lii am nañ li ma la wax léegi ñi fi ñëw xamuñ ko wala ci tele lañ ko daan gis waaye sëñ Tuubaa mi nekkaloon moo fees seen xol ba mu jaral leen bàyyi seen itte jóg ñëw fekke bisam bii kon loolu war naa tax ku di jullit wala nga di murid gëm suñ Tuubaa nga bàyyi sa àddina ak sa àllaaxira jox ko sëñ Tuubaa hmm. ndax ku ko jox sëñ sa sa bopp mu téyel la ko àddina ak àllaaxira sëñ aatu dafa doon koo xam ne doon liggéey ci ndaw ñi li sëriñ Saliou wax léegi li mu defar ci aw nit defal ko ci yoonu murit defal ko ci lislaam defal ko lislaam ak diine loolu kenn xamut nu mu toll ay junni junni doomi aadama ñoom la jël defar leen bañ doon ay murit saadix bàyyi lañ nekkoon ndax wax nañ ne bi muy tàmbali liggéeyal Sëñ Tuubaa ay quatre-vingt nangam di jógee université di ànd ak ay mbooloo ñi nga xam ne ay jàngkati tubaab lañ woon mu jël leen def leen ban doon ay murit saadix nga xam ne tey fu ñu taxaw man faa doon représenté représenté Sëñ Tuubaa loolu du ay caaxaan liggéeyal Sëñ Tuubaa koy maye waaw moo waral lii xew-xew. lan moo la gën a marqué waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbooleem mbooloo mi nga xam ne yëpp ñoom ñoo fi teew ak ñiy dégg suñu kàddu waaw di santaat yàlla bu baax rek ci eh, liggéey bi ak eh, sëñ Atou Diagne nga xam ne noonu la ko yàlla melal tey rek dama doon wax ni ah, moom day wax dëgg yàlla jëmm la joo xam ni doy na sëkk lii nga xam ni moom la sëñ Muntaxa li ñu xam ci li mu ko mujjee sant ci ab liggéey muy université bi li mu koy wax ba yegg ci dafa ni xaside yi moom mooy lépp sëñ Tuubaa dañu loolu nag man maa koy taxawal sama bopp waaye nag sama waa ji laa ci àndal muy suñu aatu ci euh, liggéey bi mu doon liggéey demoon na ci ba toll ci foo xam ni dégg nañ ci làmmiñu Serigne Saliou mu wax ko ni ko dey nii ngeen di màggale moom laa jàpp muy sama màggal nii ngeen di gàmmoo yi tamit moom laa jàpp muy sama gàmmo moom ci jëmmam bokk na ci ay soññam ni ñun dey lépp loo xam ni nit ñaa ngi koy gis muy ak wilaaya muy kuy dem ca arasaka ñëw nee na loolu lépp nattabliwuñ ko waaye ñun dañoo boole loolu ak sunu xam-xam ak sunu lépp dëxañ ko ci biir sëñ Tuubaa daal ne képp koo xam ne daal bëgg ngaa jël suñu fit maanaam bëgg nga noo jaaxal nee na kooku wan ñu ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi ne la wóor ni daal kooku daal moom bu nu ko ci wanee féetu ñu ci kaw nee na ñun ñu laxasaayu topp ci ginnaawam waaye buñ la tamit ne la wóor ni moom dootoonu mën a dabati fenn kon moom naka jekk dundam gépp da koo liggéeyal sëñ Tuubaa ba xëy wàcc kon alhamdulilahi rabil alamin sëñ Tuubaa mi mu doon liggéeyal nag maanaam la waxoon rek ne ñett ñoo ma xam te duñ ma mooy yàlla mi ma bind yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi tax ñu bind ma ak murit bu dugal ci biir bàmmeelam kon moom mel na ni lim daan def lépp da cee amoon rafet jot waaye tey nag la yàqin ci Sëñ mm-hmm. yàlla na ko Sëñ Tuubaa li gërëm fa mu nekk barke Seexul Xaddim jërë ngeen وأنه دونه عقل وأفكار lii de sëñ Atou Diagne de xanaa kàddu ma ci wax mooy euh, sëñ Atou dafa nekk nit koo xam ni maanaam euh, dafa jariñee ndax li tax mu jariñee mooy dañu toll ci àdduna joo xam ne lu du liggéey sëñ Touba rek daanaka du dara te sëñ Touba euh, sëñ Atou bi biñ ko xamee ñun bi ñu nekk tu tànk ba ni ñu xàmmee xamuñu ko dara guddeem bëccëgam lépp liggéey sëñ Touba rek lañ ko xamee waaw beneen bi mooy culture murit da koo génne ci partout à travers le monde nga xam ni da ngay ñëw complexe murit moom moo ko fi jëlee mën naa ni ndax bu njëkk boo masaan génn da ngay cravate def fii léegi nag moom mu ni murit murit da ngaa war a yiw sol sol gu ba pare nag nekk un intellectuel suñu atu Diagne dafa nekk un intellectuel ba pare moom ci organisme bi yëpp daara yi fu mu nekk partout dans le monde boo demee seen baylaat la ñu sol yu set wicc sol seen maxtu yu ba pare di liggéey sëñ Tuubaa nag ba pare nag xam lu bari ba pare ne dégg waaw ndax mbooloo mi tey boo gisee rek nga xam ni liggéey sëñ Tuubaa rek moo fi nekk ñun daal li ñuy ñaan mooy yàlla ñu yàlla taas ci barkeem la ñuy ñaan rek